asalaamaaleykum asalaamaaleykum mi ngi noonu on est mardi le 16 novembre 2021 delluwaat dellusiwaat nañ ci seen émission. journal de l'arène xam ngeen nag plateau bi duma ci wet benn yoon dama ciy ànd ak saa su ne nga xamante mooy sama góor gu baax bi Babacar. ah macha allah Babacar ni nga ni ah, que yow nag jàkkaarloo yow ku ko def di góor te moom ma xam ne ngóoram. góoram nekk góoram des na quoi parce que macha allah. Ah, man nga ni jigéen di mel di. jigéen bu façonné. Mm-hmm. macha allah mm-hmm. xeesalu yaram ba mu yàqu. am sourire bu baax mm-hmm. ah? taa blanc yi catuuma la macha allah <laughs> ah ku jàkkaarloo yow kay bu béggewul ni muy def looloo tax may reeta maa ngi lay ziar bu baax di la fay. lay fay Babacar amaat contentement bu baax a baax bi ak yow waaye waaye tey daal nga ma suba teel bi hmm. kontaan naa trop non yow soo kontaanee rek kontaan naa te xam naa su ma kontaanee aussi suñu mbokk internet yi ah ñoom kay gis nga ñu lay bëggee ñëpp a ngi lay bëgg. macha mi noonu amaat contentement bu baax a baax retrouver leen ci seen fii émission journal de l'arène sans plus tarder nañu dem seetaan loolu nga xamante ne mooy yëglekaay yi dik dikkaat ci plateau bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 16 novembre 2021 dañuy ñëw kin ci yëglekaay sunu lamb la ni xëy doore ko. yëglikaay bi di sunu làmb nag tey xëta mu njëkk moom la ca xëy tey gën caa fës bokk na ca la nga xam ne nii daal moo di làmb ji ak weeru décembre woo xam ne jàpp na ne daal boo bëggee dégg-dégg làmb boo fekkante ne fi mu nekk nii dañ koo may ay laaf wala mu sax ay laaf war a naaw dëgg-dëgg nag ne fër jëm ca kaw moom boo bëggee dégg-dëgg yëglikaay bi ne ci weeru décembre wii la loolu nar am yëglikaay bi ne ndax nag la ko waral mooy Siteu Papa Sow le 5 décembre Pape Abdou Fall ñëw jaar fa ñu ne déet ne waay le 19 décembre Pape Thialis Faye andi ka nga xam ne nii moom moo tafaatin ak ka nga xam ne moo di ka nga xam ne moo di booy Niang bu Pikine ñu ne déet ne waay le vingt cinq décembre ba tey ka nga xam ne moo di Jamaïcain andi xoyantaan bu Gàmbi am mu war a daje ka nga xam ne moo di Baye Mandione bu Caaroy moo tax yëglikaay bi jàpp ne daal soo bëggee dégg-dégg moom ah weeru décembre wii daal lamb moom boo sàgg ne fi lay jaare jógaat bu baax a baax a baax a baax yëglikaay bi nag ne na Siteu Papa Sow fin de récréation noonu la ko yëglikaay ba dal di tudde Tafatine ak ka nga xam ne moo di Boy Niang yëglikaay bi ne na combat boo xam ne daal maanaam wàllum bastonnade ay fëggante ay ku yëglikaay ba tamit ne na bàyyi Baye Mandione xoyantaat boobu moom moom mooy soog de la Sénégambie yaa noonu la ko yëglikaay bi tudde mu mel ni ki boo bëggee dégg-dégg ñaari réew lay lëkkale boobu combat beneen komba boo xam ne moom balaa décembre des na ko bëre bu soobee yàlla muy diggante Forza ak Pakala ñaari mbër yi nag ci seenu jàkkaarloo yi mujj daal te nga xam ne ni daal moo moo di Pakala moo Forza ku ne wax nga sa morom Forza ne na ko man day pare naa pour la nga xam ne ni moom moo di bëre ak itam xeex lu ci mën a doon rek pare naa te dinaa la ko andil ba mu doy sët Pakala ne ko bu yeboo nga pare ndax man mii tamit bu bëggee dëgg-dëgg daal maanaam combat bii ma la daanoon ñu bëri woon ko ma am ndam ci yow bii moo koy gën a yomb mu mel ni ki nag ñoom ñaar daal ñu nga commencé ku ci nekk di diggu sa moroom ka nga xam ne nag ab moom ñëw na te dimanche ji la koy bëre muy Abu Ñaasa bu Lansar diggante ak Pape Sawru Fall di ab menacé tamit di nekk ci lamb lam ca gis daal ban ko laajee xalaatam Sawru daal ci biir yëglikaay ba nee na li am ba des daal maanaam moom Abou Niass la ko arrangé ci combat bi mooy mu attaqué Pape Ndoye xeex moom téelé ji ak moom yëglikaay ba daal loolu la xëy tey wax wala sawru faal loolu la fa wax ca biir yëglikaay ba nga xam ne moom moo di sunu làmb ba tey biir yëglikaay ba buñ fa duggee Ousmane Diop numéro 2 nekk école de lutte Bac Seras ne moom la mu bëgg nan ko jox caatu Rebeuss wala booy barñi waa sa ko balte mu defanteeg ñoom ba mu saf sap Fall Ndiaga tamit di lutteur nekk écris fa nga xam ne moo di saa njàmbur moom ne na daal Eumeu seen moom moo di mbërëm bi nga xam ne moom la préféré ci làmb yëglikaay bi moo xëy tey ñëw wax nu ko buñ fa jógee ci làmb simple ja la ñu jëm yëglikaay bi dikkal nañu ca làmb ja nga xam ne Yékini tegoon na ko samedi jii nu génn ca ngeeñeen tegoon fa ñetti millions mu mel ni ki nag làmb ja mujjul yegg ngir problème mu sécurité moo tax ki jiite làmb réew mi di Bira Sène ne boo bëggee dégg dëgg ay décision moom des na ko ca jël nag ngir régler mbir ba mu ne koj teg ko ci aw yoon xam mbir la ko waral lu ca war ñu def ko ca fa nga xam ne ni moom làmb ja yegg na ba yegg ci lool mooy jax jëmu tëggun Iba Mar Diop ca stadium ba muy juróomi million mel ni ki nag juróomi million ya moom ña séddoo ñetti mbër lañu boo bëggee dégg dëgg libidoor luur ya moo fa jaar dal di koy jër la nga xam ne ni tamit moom moo di Tony Senior moom itam jël la nga xam ne moom moo di leseba to ka nga xam ne moo di ngóor ñaax tamit maanaam tamit jël la nga xam ne daal mooy beneen raw gàddu mu mel ni ki daal ñoom ñett ñooñ moom lañ foo tegoon ñoo ko ne tungaañ yóbbu ko kera caax fa nga xam ne moo doon te stadium Iba Mar Diop ka nga xam ne nii moom la ñu tegoon jurut la ko commencé le onze jàpp le quatorze novembre moo ko jël yóbbu ko moom moo di jibi seen ñu naan ko Odinga yëglikaay bi daal nee na lamb jurut ja daal maanaam fan yooyu ñu fa teglante di ko bëre ba nu demee ba ca jeexantal ga daal Odinga ñu naan ko jibi seen moom moo teggi teg ba yóbbu ko mu mel ni kon daal lambi simple ji tamit fi mu nekk nii jax na waaye mois de décembre bi itam nar naa jax ba yegg ci lool ndax nag bu bëggee dégg-dëgg combat yëglikaay bi lim yépp te mu nar a am ci weeru décembre ah kon daal li nuy ñaan mooy fekkete tal ndax amateurs yi daal loolu moom moom rek la ñuy xaar kon di jaajëfal promoteurs yi rek parce que tamit ñoom ñuy génne di fay mbër yi bëre kenn du ñoom mii noonu Babacar euh, te yëglekaay yi loolu la ñu indiloon. su ko mhm. defee euh, tey daal euh, suñu làmb. Mhm. dañu xëyee loolu nga xamante ne mooy nee nañu un mois de décembre explosif. Mhm. pour l'envol de la l'arène. daa mel ni Siteu dafa nar a jàkkaarloo ko nga xamante ne mooy Papa Sow le 5 décembre. Boy Niang dafa nar a jàkkaarloo ko nga xamante ne mooy Tapha Tine le 19 décembre. Mhm. Euh, Baye Mandione. Mhm. nar a jàkkaarloo ko nga xamante ne mooy. Xoyantaan Xoyantaan le 25 décembre. loo wax ci loolu. Ah. <laughs> rahmatulah na koy waxee neex na am na solo. waaw waaw ah bien sûr waaw ah, non c'est normal ni ñu koy waxee. Baye Mandione dafa la jàkkaarloo Xoyantaan ñu bañ a ah. ko am euh, concentration. bien bàyyee ku wax non moo koy neexal sax. déet Babacar moom ku nekk moom faw nga bàyyee parce que man si loolu laay dox man moom jàmm rek laay wér ah. en tout ça c'est à cause de toi c'est parce que en mm. fait. waaw que loolu moo normal et puis ñu ngi seetaan loolu lañ bëgg ah. xam nga stress bu bëri baaxul mer mu bëri baaxul. taasukat oh. ba noonu na mer mu bëri ñàkk la ku mer kala mer yàlla mooy maye. ku sa yaay nga mer. Mhm. noo tudd nga mer foo dëkk nga mer. ñun xamuñu ah. ah, lañ xam. Euh, dernière fois gis naa benn euh, kii ñaari mbër yi doon euh, ñi nekkoon ci plateau. waaw. yoo lele bi. waaw loolu lu ma ko mooy. Euh, alaaji alaaji. mbay ak buuse. ak buuse ñooñu dañoo saf xorom. <laughs> invité bisu ngoone ya. ils ont fait quelque chose de très intéressant. bien sûr parce que bégloo nañu. sénégalais yi vraiment vraiment bégloo nañu sénégalais yi. waaw reetaan nañu xoolal journée boobu noonu loolu noonu dafa doon loo xamante ni gis naa ko ci statut plus parce que sénégalais yi dañu bëgg di waaw dañu bëgg di dund jàmm quoi. c'est ça c'est ça le Sénégal ñun ak moom moom gëm te moom la ñuy dox. na solo macha léegi kon li nga ma interpellé loolu muy mois de décembre boo xam ne làmb mën na fi jaarewaat. Mhm. gën a naawaat bu ma ko mënee wax ci wolof. gën a jëm ci kaw loolu nag. yaakaar naa ne lamb ji boo xoolee ba mu ubbee ba tey ci ñiy dem lamb wala ñu koy dund muy amateuru lamb yi mhm. xam nañ ne làmb actuellement wax dëgg yàlla yëngu na yëngu bu baax a baax ndax combat yi ñu ñuy indil chaque weekend mhm. ay combat yu doy waar lay doon ay xale mhm. bëri yu doy doy waar combat yoo xam ne bu ñu ca dem mhm. bari na sax ñu naan ñooy favori far ñu ñëw daan leen kon mois de décembre bi defe naa si te Papa Sow le 5 décembre Pape Abdou Fall ñu ne déet na waaye Pape Thialis Faye ñëw le 19 décembre Tafatine Boy Niang ñu jóge fa Jamaïque ñëw le 25 décembre Baye Mandione di doomu Sénégal xoyantaan di mbër bu dëkk Gambie war a jóge ah non mois de décembre boobu explosif da na ko def la sax ko raw loolu nag li muy jur rek mooy que ni yàlla na ci lamb gën a gis boppam parce que suñu sport national la defe naa date yi yëpp ay date la yoo xam ne mhm. Sénégal yëpp a ngi koy xaar mhm. yàlla nañ ko fekkete tal ko waaw ñu bëre ko que le meilleur Ah, à ne surtout pas oublier mhm. ay dates yu remarquables. bien sûr mois de décembre bien sûr ils n'ont pas euh, fait l'erreur de dire euh, c'est un décembre explosif donc ñu ngi koy xaar avec plaisir. Mhm. su ko defee ñu daal di jàll ci kër nga xamante ne mooy Bacala Forza. Mhm. du 28 novembre prochain. Euh, nee nañ keneen ki daal nee na je t'aime. keneen ki tontu ko moi non plus. non plus. Ah! <laughs> lii de doy na waar <laughs> daa ci ay code la ñuy waxante. bien sûr waaw xam nga mbër dañuy ñoom waaw des fois dañuy waaw keneen tontu ko moi non plus. moi non plus euh, li ma xamoon mooy je t'aime aussi. ah man de moom a dàqal. <laughs> moo la dàkkal ah, ah moom maa laay wër kooku di Forza nee na prêt pour lutter. Mhm. et pour me bagarrer. Mhm. dafa dafa dafa nar def combat en même temps xeex. bëre xeex pare na pour loolu. Mhm. kooku di Pakala. mu ne. ce sera combat plus plus facile pour moi. maanaam combat bu yomb lay doon ci moom combat bu yomb lay doon ça dire que waaw loolu boo ko gisee rahmatulaay mooy ñoom ñaar xam nga mosoon na ñoo bëre. Mm-hmm. Forza Paka la daan ko. Mm-hmm. revanche la leen Gaston Mbengue tëggalaat nii le 28 novembre suñu papa Gaston. Mm-hmm. muy nekk combat boo xam ne ñoom ñaar loolu ñu la wax ñoom ñaar ñëpp loolu na ci ñoom ndax ñoom ñaar ñëpp ay champion lañ dañoo bëree lutte simple ba sénégalais yi xam leen. Paka la champion d'Afrique la. Forza noonu. détenteur drapeau chef de l'état la ñoom ñëpp ay mbër waada la looy wër ci mbër ci force ak pakala boo ñëwee da koy gis ci ñoom mhm. ci xeex bi ci bëre bi ci foot bi mhm. seen combat moom doo ci seen tournil faw ñu bëre faw ñu xeex parce que ñaari jàmbaar lañ mhm. moo tax combat bi daal li am solo mooy yàlla nañ ko fekkee te tal di ñaan bés ba ñëw rek le 28 soreetul waaye xam naa da nga gis làmb ju doy waar. soreetul de dana leer naññ ni mi. dana leer te yàggatul dara. kii di Saourou Fall. sur le choc du novembre. nee na Abou va attaquer Pape maanaam. Abou Ndiassé daal moo nar confronté nga xamante mooy Pape Ndoye euh, kon daa war a songu daal la da ko war a attaqué ji attaqué dal ci kaw <laughs> waaw parce que boo gisee mu wax loolu xëy na analyse parce que dañu laaj Saourou Fall manager la uh-huh. maanaam ñoom ñoo yor licence yu mbër yi di leen signaler ay contrat au niveau du CNCR seen kii moom biñ ko laajee analyse boobu la joxee dafa jàpp ne uh-huh. Abou Niass li ko analyse ci bés bi mooy mu attaqué uh-huh. maanaam mu bañ a déglu Pape Ndoye parce que tamit làmb ju ne day am lu koy lu muy laaj que tey adversaire bi dañ naan boo ñëwee déglu ko ba mu réagir nga doog a dajeek moom wala nga xaar ko bu ñëwee nga nga nga tëru ko bëri ak moom wala ñu ne adversaire bi attaqué ko Sawru nag xam naa dafa jàpp ne avantage Abou Niass ci combat bi mhm. attaqué lay doon ok ngi dégg mhm. ah mën na attaqué nag réussir mhm. la mu bëgg waaye mën na attaqué tamit ñu contre ko attaque la mu doon uti mu far yàqu parce que bëri la rek mais li am solo mooy ah yàlla nañ ko fekk taal ko dimanche la jamaykee fa jaar suñu rakk suñu frère ñu koy nuyu di ko ziar le jeune promoteur waaye xam naa daal bis bu neex a neex la. en tout cas loolu loolu mhm. en quelque la ci kooku nga xamante ne mooy Abou Ndiass. waaw parce que da ko il est en quelque sorte il train de dire d'attaquer. waaw pour mu dem attaquer ji daal. mais bon comme moom am na entourage. bu mhm. père Max Mbargane yor. Mhm. ak ña ko wër ñëpp waa saar xam naa ne ñoom pare nañu pour bëre xam nañ la abu war a bëre ak Pape Ndoye Pape Ndoye nekk tamit ci écurie bu mag muy Fass Ndakaaru ñoom Tafa Gueye wër ko ah ñoom euh, Amadou Kati Diop nekk entraîneur yi ñoom tamit xalaat naa xam nañ li Pape Ndoye war a bëre ak Abou Niass kon daal Ramatoulaye dimanche bu soobee suñu borom pour euh, manque de sécurité. Birasène on prendra waaw parce que boo déggee loolu boo bu maanaam Yékini dafa tëggoon làmb mm-hmm. xam nga Yékini bu baax defe na bu léegi bi mu bàyyee làmb dafa nekk promoteur maanaam yore benn structure bu ñuy wax Fata production mm-hmm. Fata production boo nu di wër ci dëkk bi Sénégal di tëgg ay gala mm-hmm. mu tëggoon benn gala wu lit simple ngeeñeen ci samedi bi nu génn léegi nag bi làmb ji di dem di dem ma si biir xam naa ne problème mu sécurité posé wu ba manque de sécurité boobu jaare fa yàq làmb ja loolu moo tax Bira Sène génn kooku di wax noonu muy Bira Sène moo moo jiite làmb ji mu wax ne daal ñoom dinañ jël ay décision maanaam xool lu ko waral parce que tamit mbir su amee mu demee noonu te xam ne lu ne mën na fa xew mm. wax dëgg yàlla jar na mm. xool xam lu ko waral ndax mm. ci promoteur bi la jógee wala moom mi organisé woon wala fan la jógee parce que boo ko xamee di nga war a mën a tax nga xam yow pour ëllëg nga teel a défendre pour loolu bañ a am parce que tamit 3 millions foo ko teg mbër yi fay ñëw day bëri amateur yi fu ne la ñuy kon sécurité ba moom sécurité bi dama naan sécurité avant lay doon mhm. Ramatoulaye mhm. Ah, avant mhm. pendant et après sécurité ci yenn ci événement nii la war a demee waaw mooy lépp surtout ne ñëpp fay daje. te ku ne da ngay ut pour sama bopp dina ñëw exactement. Mhm. ku nekk sa bopp rek ngay tal. voilà donc euh, dafa doon loo xamante ne dañ ko war a bàyyi xel bu baax a baax. Mhm. foofu nga xam si arène yi ci ci ci ci. fu mu mën a doon de foot yi mhm. ba ci daal fi foo sécurité rek tu te ba ci fu nu fa nga xam ne sax dañ fay woote gàmmo yaag màggal yaag lépp parce que mbooloo fay daje. mi ngi sécurité moom fu fu nit ñiy daje. sécurité fa war a jiitu moo fa war a mujj. waaw. Mhm. macha allah kon euh, mi ngi noonu nañ ci mhm. bàyyi xel bu baax a baax. Mhm. Euh, kooku di Gala Jax. dimanche dernier. ne Libidor Tony Junior. et Ngor ñax en patron. <laughs> Ngor ñaax waxaatal Ngor ñaax. Oh, Ngor ñaax Ngor ñaax. <laughs> waaw bàyyi leen ma rek prononciation bi. <laughs> acca kay noonooy neex gars Ngor ñaax. bi ma bu ko Ngor déggee dina dina la faw mu neexal la. dinaa defar retour waaw. man maa ngi moom lañ may xasee chaque jour chaque jour ma woo tuuru nit ki mu ne ma ram ni ngay woowee sama tur mooy lan. <laughs> macha allah am na solo mi ngi laa lay may dama ciy mu neex man ma woowee la Ramatulaay rek Sénégal jëm kanam. am na solo gala boobu Jax moo ko tëggoon dimanche passé boo xoolee gala bi nag dañ ko division parce que dañ doon def luur ak lese. Mhm. maanaam ñaari eh, miss lañ doon teg mais bi yoon dañu organiser teg ba ñett def ko ñett. Mhm. ñetti pàcc. Mhm. maanaam mu am luur am lese am tànk ci lit simple maa ngi dégg luur beeg lese beek tànk yi ñett maanaam ñetti mbër yooyu muy libidoor bu fële nga xam ne moom mooy dëkkule bu boobu bu kayaar euh, ak ki nga xam ne nii moom moo di Tony Signor tamit dëkk ba tey foofu ak ki nga xam ne moom mooy ngoor ñaax di doomu séréer ñoom ñett ñoo jël lañ fa tegoon maanaam cinq millions la jag sa tegoon samedi bi passé ah, cinq millions juróomi ñoom ñett ñoo ñoo mais buñ ma ci fàtte nag ah, ñu bañ ñoo fàtte ah, waaw ci waaw dina ciy baax. dina ciy baax dina ciy baax ah. noonu en tout cas. Euh, Babacar euh, foofu la ñuy ak euh, internet yi mm-hmm, mm-hmm. tey. daal lii lañ leen indiloon. Mm-hmm. waaw di tàggatoo rek di ñaanal ñëpp jàmm di balu ñëpp àq. par rapport ak ñi ñuy seetaan di ñu bàyyi xel vraiment parce que tey da ngay nekk ci plateau di def ay émission wala nga wér micro di reporter. pour sénégalais yi ah am na ñoo xam ne nii tey chaque jour que jëfe ñu ngi lay ñaanal te doo leen gis mos leen xam mhm. man ñi may waxal chaque jour téléphone ñu ci yëpp mhm. yàlla xam ne mosuñoo te ñu ñu encouragé di ñu mhm. jox ay conseils yaa ngi dégg te loolu dañ koy soxla parce que matuñu quoi ay nit lañu te nit ki defe naa boo bëggee avancer sa àddina di nangu ku la critiquer di nga nangu ku la conseil di nga bëgg tam ku la encouragé te loolu lépp mu Euh, bopp mhm. accueillir ko ak ak xol bu yaatu parce que mhm. suñu njëriñ rek lañ bëggal mhm. moo tax maa leen di ñaanal jàmm ñoom ñëpp fu ñu mën a nekk rek tuuti yaay Sarr mu ngi ba Espagne ñoom tam daf ñuy seetaan maa leen di bëgg Seydou Côte d'Ivoire du ma leen fàtte Dame Diop Afrique du Sud ñoo ñëpp xam nga parce que euh, monde maanaam Sénégal yi ne ci diaspora bi dañuy bàyyi xel làmb bu baax a baax ñoom Cissé Brésil sëñ Fallou Sène sama mbokk la moom tam mu ngi Brésil ñi xam nga sama goro yi nekk à l'étranger ñi ngi Turquie ñi nekk Italie Afrique du Sud ñoom Assane ak Ousseynou di la béggee di béggee képp pour ñu suivre di nuyu Fallou El Capo jaaykatu yére la nekk fi nga xam ne moom mooy euh, marché Tilène maa ngi koy jaar bu baax a baax a baax di nuyu képp ku nga xam tamit jaaykatu yére nga di nuyu Babacar bu Maud Lama sama turando gis nga lacoste bi. macha mhm. allah waaw macha allah la kontaane tayit sa marron noir. xanaa ak say lunette <laughs> ah? yàlla na la yàlla na la cat seexlu waaye ramatulaay euh, Maya jaaroon na fi tudd samay lunette ñamba tudd ko yoon nga bëgg koo tudd. non dafa rafet ah, lu rafet des koy wax. waaw mi ngi noonu en tout cas daal fii la ñuy yem ak yéen euh, tey Babacar wax na ko di leen baalu ak bu baax a baax ndax wax dafa metti bien sûr wax dafa metti surtout jàkkaarloog ay nit yoo xamante ne xamoo leen xamuñu la di wax ak ñoom parfois nga juum te doo ko tey ngeen ak bu baax a baax et puis di leen jox euh, rendez-vous demain incha allah à très bientôt